mouvance présidentielle bokk ci benn bokk yaakaar. Mhm. ñu jël candidat teg foofu à Tivaouane. Mhm. yow nga jël def liste parallèle taxaw. Mhm. loolu fan nga ko teg aussi. waaw loolu boo boo gisee ma def ko avant ma koy def wax naa ko man bi ñu demee des leaders wax naa leen ne leen ñoo bokk coalition mais man damay dem ak sama liste Tivaouane parce que boo nekkee ak ay nit dëkk ak ñoom guddeeg bëccëg wala nga nekk ak benn groupe da ngay bëgg groupe bi avancer. boo sentiree ni boo sentiree ni groupe bi day am faiblesse ci benn côté da ngay jël risque dem jëli ji place place groupe bi loolu laa def. déet non loolu kay bu fekkonte ni loolu am na li nga wax ni choix bi euh, coalition bi def. choix boobu ngay jàppale parce que boo ko jàppale woon mu dem. waaw mais man pourquoi def loolu. mais parce que choix bi mu def choix bi dafa tànn exactement ki nga xamee ni que bu demoon moom kenn tamit dañuy gañe ndax moom déjà am moom troisième la jël. kon tey jii bu fekkee nanga def choix si kooku am na ñoo xam ne ci yow la ñu nekk mais duñ koo mës a woteel ci àddina politique dafa xaw a complexe. d'accord mais léegi est-ce que mën nga ko mën nga nag topp sa logique. Mhm. ba parce que loolu aussi défiance la boo def. Mhm. Euh, boo def euh, alliance bi. Mhm. Euh, maanaam coalition bi. est-ce que mën nga ci dem ba tekk ci sa ndomba tànk wala nga génn ci wala nga jël beneen taxawaay. non man def ma ko pour génn ci coalition bi. ah non si su fekkente ni da ñoom dañu dañu di coalition bi. Mhm. dañu taxaw ne seen choix kat. Mhm. def